asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bismillahi irrahmani irrahim wa sala allahu wa sallama ala alfatihi alxaatimi wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokk jullit yi sappe yi ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam nuyoob lislaam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala mu mel ni dama bëgg ñu ñëw ci jotaay yi laayi biirante laayi biirante ci li ñi jàngale te jëlee ko ci jàngaliinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee ko ci jàngaliinu alquraanul karim ndax toll nañ jamono joo xam ne daanaka duutoo xamati ban jamono lanu nekk ndax nit day yëkkati lu ne même bu wuuteeg diine mu gàcc ko ci mbagg ñu baax ñi am ñoo xam ne nii sax ñeme nañoo dem ba di sos yoo xam ne dañu koy askanee mag ñi te fekk ñoom bari un anhu ñu ca dañ lañ lool ñu war bokk xam ñun ñépp ne mag ñi jàngalewuñ lu wuuteeg li yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale jàngalewuñ lu wuuteeg li alquranul karim jàngale ba tax na su nit yëkkatee yenn yi askana leen ko su boobaa loola war nañ koo seetaat bu ñu dellusee nag ci jàngaleenu sunu góor gi di maam Cheikh Seydil xaaji Malick danga gis ne wax na ak jamono ci yu baree baree bari waaye ñooñu jamono ñoom dégguñu ko mu wax moom Cheikh Seydil Hadji Malick ci li nga xam ne mooy ab tasawuf jàngale ko jàngalin woo xam ne danga naan daal a tasawufu mooy a sunnatu mooy a shariatu ku wuuteeg sunna wala sharia rek su boobaa wuute nga ak tasawuf ba moom maam Cheikh Seydi Hadj Malick wax na ne li ann ahla tasawufi hum alladina xaqaqu culuma alshariati wa saxahu amal aljawaari alzahirati mu ne ñoñu tasawuf mooy ñiy askanale seen bopp ci soufisme mu ne ñooñu dey bu ñu waxantee dëgg ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo jëmmal ñoo dëggal li ñu tuddee xam-xamu sharia foofu nag boo fi taxawee dañ na kon ñan la maam Cheikh Seydi El Hadji di wax mooy njaboot gii nga xam ne tey kenn ku nekk ma kurus kenn ku ne ma nga réyal kenn ku ne ma kaala te boo ko làmbee daj ko laaj ko lan mooy safaratay julli wala lan mooy safaratay njàpp du ko xam te pourtant boo ne ko doo suufi de mu tojanteeg yow bopp kon su boobaa kooku na làmbaat boppam ci jàngaliinu maam Cheikh Seydil Xaaji Malik jii te mooy ahla tasawufi hum alladina xaqaqu culumu alshariati wa saxaxu acmaal aljawaari alzahirati kon saay wooy woote ak tasawuf Cheikh Seydi El Hadji Malick nee na fexeel ba li ñu tuddee xam-xamu sharia nga am ko boo ko peegu titim nga xam ca lu defar sa diine Cheikh Seydi El Hadji Malick nee na suñ lay wooxee suufi yi fexeel ba sa jëf yi nga xam ne jëfi cër la nang ko wéral te mooy na sa julli wér na sa woor wér na sa joxe azaka wér na sa aj màkk wér kon al amal yi nga xam ne amalul jawaare la al zahirati nga xam ne dang koy def nit ñi di ko gis soo Seydi Xaaji Malik nee na képp kuñ naan sufiyanke nga nee na war ngaa wéral jëf yooyu foofu itam boo fi taxawloo dang ne waaw kon ñene ñoom ay taalibe lañ te seeni julli rafetut ñene ñoom ay taalibe lañ te duñu woor ñene ñoom ay taalibe lañ te lànk bañ a dem màkka ñene ñoom taalibe lañ te duñu joxe asaka waaw léegi ñooñu ñoom nuñ leen di nattee ak waxu ak njàngaliinu Cheikh Seydi El Hadji Malick ji moom Maodo yemu ci mu ne ñi ñuy tuddee ay sufiyanke mooy ñi nga xam ne wa banawha ala qawaidi diin mooy jëf ju ñuy jëf rek dañu koy tabax ci kaw kenuy diine maanaam la ñuy def du wuute benn yoon ak diine Cheikh Seydi Hadj Malick nee na ñooñu dey ñooy ñi nga xam ne ñooy ay sufiyanki mu teg ca nag ne wa zaadu bi tasfiyati albatini wa tathirihi min al aghyar nee na ñi nga xam ne ñooy ay sufiyanke mooy ñi sellal seen biir mooy fexe nañ ba seeni xol sellal nañ ko defar nañ ko fexe nañ ba seeni xol laabal nañ ko laabal nañ ko ci lan mooy li ñu tuddee fiiraange te boo xoolee tey li yàq kër yi tey li yàq lu bari ci daayira yi tey li yàq lu bari ci tariixa bi mbokk yi mooy alxiira mooy fiiraange kenn ku nekk di tibb tànku moroomam kenn ku nekk di xaatim moroomam kenn ku nekk di fas moroomam nga xam ne mbalaanu wazifa ma bu nu ca dajee nga xam ne foofa lan war a defaroo kenn ku ne boo siggee xool sa moroom yaa ngi naan kii de yàlla na dee sa Seydi Haaji Maalik nag nee na loolu du soufisme nee na soufisme daal mooy nga jëfe yi yàlla santaane jàng li nga war a jàng ci sa wàllu diine waaye itim defar sa biir laabal sa biir ci lépp loo xam ne lu ñu tuddee fiiraange la ba nga xam ne doo mbëkk kenn ba nga xam ne doo gaañ maam Cheikh Seydi Hadji Malick nee na loolu day mooy li tuddee ak tasawuf mu ne suufiyu mooy ki nga xam ne am na ixlaasu taabudi lil malikil qahar nee na daal ki ñu tuddee ab taalibe mooy ko xam ne ni ay jëfam ay xeeti jaamu yàllaam sellal na ko lu tax mu sellal ko mooy sellal na ko ngir borom bi subhaanahu wa waaye tey ñun boo xoolee gaa ñi ñu ci bëri bu nu gisee sëriñ bi ñu kërti kërti bu nu gisul sëriñ bi def lu leen neex bu sëriñ bi ñëwee ci jàkk ji ñu julli si ànd ak moom bu sëriñ bi ñëw dunu ñëw bu sëriñ bi ñëwee ci mbalaanam wazifa bi ñu ñëw ànd ak moom bu sëriñ bi ñëw ñëw waaw bu sëriñ bi demee ne nañu joxe joxe ñépp kër këri joxe bu joxewut du joxe bu sëriñ bi wootee ñépp kër këri indi bu yàlla wootee kenn du la faale Cheikh Sidi Hadj Malick lii xamoon na ko nee na nag su fi ki dëgg mooy koo xam ni def na ixlaas ci ab wut lil malik al qahar mooy fexe na ba sellal ak jaamoom ci digganteem ak boroomam nga xam ne boole na bayna tasfiya al zahir wal batin kooku day mooy ki nga xam ne moom la ñu tuddee sufiyanke kon yaakaar naa ne fii la ñuy taxawlu incha allah ci jàngalinu Cheikh Seydi Hadj Malick danañ ñëw ci eh, yeneen jotaay jotaay ak ak njabootam li ñu jàngale yëpp incha allah danañu fexe ba waxtaan wi ñu tënk ko ci eh, xalimbaag Eh, sunu maam Cheikh Seydi Hadji Malick ak ak njabootam pour ñu fàttali nit ñi ne dëgg-dëgg léegi ni ñuy doxalee ak li mag ñi jàngale dafa wuute lool te itim ñi wax ak nit ñi waxatuñ leen la mag ñi jàngale ci orienté leen waaye lañ leen di wax mooy lu ñu fottasoo ak lu ñu tàccoo kon nag ñu ngi leen di jox dox daje beneen yoon incha allah. ngeen àndoona seen mbokk di seen xarit al ustaz Ahmed Omar Gueye directeur institut islamique Ben Khadija asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.